jërë ngeen jëf mbokk internet yi dalati leen ak jàmm yéen ñu ñuy top si suñu seen bi di Live Dakar 221 mel nag si nag si ay xibaar rek ñeel ki nga xam ne moo di njiitum réew bu Sénégal di président Bassirou Diomaye Diakhar fay daat rek annulé li nga xamante ne si ne moo di ab décret boo xam ne ki fi nekkoon njiitum réew daat na ko fiy bàyyi ñeel li nga xamante ne si na moo day ancien ministre ñi fi nekkoon loolee nag ñi fi nekk ancien ministre bu si ko déggee dina doon naan ab euh, mauvaise nouvelle bu naqare lool si yoom ndax kooke rek di président Macky Sall mi ngi ko jële woon rek si 1 virgule 5 de million daat ko yokkoon rek ba 1 2 euh, virgule 8 de millions yi xamante si muy 2 million virgule 8 xamante ne si rek daat na si ko doon am seen i salaire waaye nag boobee ab décret la woon euh, njiitum réew mi fi nekkoon di président Macky Sall yëkkati ko woon xaatim ko ba tax rek ñoo ko doon doxal waaye nag eh, ginnaaw ba kee daati falo nekk si bopp réew mi mu di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waxoon na rek dañuy ànd ak lecture kon nag lan doon woote ba tey rek mën na na wala sax ñu digoon ko askan wi kon nag ba tey ñanga moo di jub ak jubal ak jubbanti mën na nag kon nag jubbanti boobee ak lecture googe sa la nekk ba tax na rek ñu daal di annulé li nga xamante ne si ne moo di loolee nga xam moo doon euh, décret mu doon ab décret bu xamante ne seen rek kooku di njiitum réew mi daati na koy annulé mu doon lu xamante ne seen rek ab mauvaise nouvelle si li nga xamante ne si ne moo day ancien ministre yi fii nekkoon yooyu la ancien ministre ñu daan jot rek yooyu le salaire tolloon rek ci un virgule cinq million lekk kooke di président Macky Sall ñëwoon rek daal di bind tekk rek ñu daal ko yokk rek bo un 2,8 millions yoo xamante ne si rek ñu ko doon jot way nak euh, benen décret génnaat mu doon président Bassirou Diomaye Diakhar Faye annulé la nga xamantane ci si na bobu le boobule décret président Macky Sall dar fi won baye mu doon biir xamantane ci na jamono ji man nañ ko tuddé ak lecture ak li nga xamantane ci na modi ak jubbanti li nga xamantane ci na dat na doon am ci nguur gi nga xamantane ci si mo fi euh, wessu nekkon nguuruk président Macky Sall mu doon ak jubbanti